我我今天来得迟。

ci barke kon nag kàddu bi euh, kan mooy jël kàddu ah tur bi

この人はニュースに声はあったかくまあ分かってもバックのニュースニュースニュースにめぐるかにおけるだらいにしあにおけるにし頑張って誰がおけるにもらうもうニュースやってみて僕でニュースをしたらそれからなってきました。Here I am, I'm on the one side. Look at you.

ñoom moo xaw a xaar ndax ñëpp ñoo boo xamante ni mën nañu nit ñi war a yàq mais tey dañu yéene woon ñëpp teew nañ ci bi bu ko defee boo déggee ñu ak ñu jël ci ci waxtaan waaye lu tax ma yow am ngeen jëm ko bari wu ko li ñu def rek mooy dama la jàmm ci ci yaay la ci la wax ak sa ñu ñu ci ko ñu ndax mo ñu ci ko mo ci da ka tam ñu ko mo ko ñu ñu mo mo ma ay doom ay Guru. Yeah, some a def loolu boo ñu ñëwee ci bu foofu lay yamandeegul mais comme yéen ñëw ngeen di gouvernement bu bees loolu aussi bu ñu sañoon ngeen dimbali ñu ba bu accès ba Babagarage mu mën a agsi ba Dingiraay mën a agsi ba Kër Nganda yaakaar naa loolu mooy ñaari doléance yi nga xamante ni bëggoon nañ débat bi gën a yaatu nag mais xam nañ temps bi mu xate ak fi ñu wara dem yëpp itinéraire bi motax fofu daané la suñu cadre di sante bu baax di gërëm di sante délégation bi di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf wasalaam euh, man dingiraay la dëkk xëy na ma leeral ko ñi ñi andal ñëw fi te xeyna ko rek xamuñu ko ndax matar gajega mi nga xamni ni moo fi taawu bu jigéen xarifal gajega moo jur sama yaay man fi mooy sama néegu ndey kon jàpp naa ni fii su ma fi ñëwee ànd ak ay kilifa lu ma fi bëgg war naa koo am bu jàllee wax naa ko seen Cheikh nii wiñ jaaree di ko nuyu ministre bi yàlla dafa def mu dëkk Bambey doomi Bambey yàggal liggéey ci projet bi président ak premier ministre wóolu ko def ko ministre microfinance mu nekk ci département bi di doxal dingiraay di dëkku cosaan di dëkku diine dëkku lislaam bokk ci département bi kon waruñoo des ginnaaw bu dul loolu sa njaboot rek a ci nekk kon yaakaar naa ni war nga koo jàppale boo ñu bëggee jàppale ñun da nga koy jàppale loolu benn ndénkaan beneen ndénkaan bi mooy Alioune Badara ji mi mu àndal ñu jëm ci ay jongante mu nekk député am ñeneen ñu ko seqal ci département bi ñu bëgg nag ndam lu bu fi amoon dingaraay ci élection présidentielle ñu am bu ko raw te man ginnaaw yàlla yaakaaruma ci kenn ku dul yow ak waa dingaraay ak njaboot ma bëgg li ci sa taxawaay ci saayir ak ci baatin nga def ko ba ñu am ndam li ci des mu jëm ci njaboot gi ak yooyu bu yàlla defee jàmm la ci suñu taxawaay dinañ ko de man loolu dong moo tax ma yëkkati kàddu gi te moo tax ma ñëw maa ngi jégalu bu baax nag kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Abbas eh, Gajaga maa ngi lay ziyaar bu baax a baax a baax eh, ziyaar bi nag eh, comme niñ ko waxee nii rek dama koy def ci turu son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ci turu premier ministre Ousmane Sonko ndax ñun seeni ndaw lañu ñoom ñooñu jox li tax ñuy dox di ci yëngatu kon ñoom la ñuy doxal di ko di leen yëngatul kon fu ñuy dem rek dañuy yóbbaale seen nuyoo bu loolu wéyee it ma indi sama nuyoo bopp euh, ndax yàlla dafa dogal euh, dingiraay gii euh, comme ni ko professeur Ablaye waxe dafa bokk ci këru diine yi gën a màgg ci département bi loolu xam naa ko lu jiitu lii lu yàgg sax laata may doon ministre ndax bi ma ràññee rek Euh, ràññee ci wàllu diine rek laa xam këru diine yi tey nag bi ma nuyoo ma wax la mbégte mu rëy mi ma am ndax yàggoon a bëggoon a ñëw euh, ndiyaare la taafanteeg yow tey la ko yàlla dogal moom laa la wax noonu am naa mbégte mu rëy tey euh, mbégte moomu nag ma di ko bokk ak ñi ma àndal muy sunu coordinateur politique Demba am ñu di ko wax señor di président conseil d'orientation bu Fonds national de la microfinance ak it euh, Alioune Badara Diouf mi nga xam ne tey bi ñuy def euh, liggéey bi ci élection yi ba tax yàlla ma ñu ndam li tax tey ma toog fi moom mii moo nekkoon coordonnateur départemental bi euh, daanaka bu ma leen limee rek boole naa ci ñeneen ñi def ñëpp bokk ci parti bii di Pastef les patriotes ki nga xam ne moom mooy Hmm? Abbas Abbas Gajaga Abbas damay fàtte tuuti xam nga damay tàmm ndax Gajaga dama naan sëñ Gajaga rek Abbas mi nga xam ne tey moom moo fi nekk coordonnateur communal moom nekkal ñu fi kon ñooñu ñëpp daanaka ci wàllu uh, lii tax ñuy jóg di leen nemmeeku ak coordonnateur dingiraay ak ñoom ñëpp rek ñu ngi lay ziar bu baax a baax man dama lay ziare waale ci seen tur ñoom it ndax uh, li tax ñu di ko def mooy dafa am ñaar yu ànd. muy euh, li nga xam ne mooy wàllu li tubaab di wax spirituel ak temporel ñi yëngatu ci politique muy comme ñun Pastef dañoo nekk ci temporel bi te toujours nag ñu war di lëkkaloo ak spirituel bi ndax yàlla moom moo bëggee noonu ay mbiram euh, saa su nekk day bëgg di boole ñaar yi ñuy fas yéene di ànd xëj na jamono yonente bi sallallahu nga xam ne moom amoon na chance boole woon ñaar ñi ñaar yi directement mu yore woon temporel bi ak spirituel xëj na àdduna dem ba nga xam ne jafeeti na pour nit mën a defandoo ñaar yi moo tax jàpp nañ la kon benn la rek boo xam ne kenn ku ci nekk day nekk ci benn fànn waaye ñoo bokk li ñuy liggéey loolu nag su amee day laaj ñuy ñëw di waxtaan ak yéen di saafoonteeg yéen di leen wax fi ñu toll ak li ñuy naal ak fi ñu jëm kon loolu bokk na ci tànk yi ay tànk nemmeeku la yoo xam ne dañ ko jàppoon pour kër diine yëpp nemmeeku yooyu nag dara waralu ko lu dul rek pour xamal leen ak gën a bëgg dalal seen xel ci Euh, sama kilifa yooyu ak gouvernement bi nga xam ne ci laa bokk moom la ñu am jëmale ko ci diine muy taxawaay boo xam ne lenn dafa am euh, loola ñu wax ko booba xamuñu woon ne dañ nekk ministre mooy ni nga xamee ne ci diggante relation bu am bi war a am diggante temporel ak spirituel mu war a nekk relation bu sincère maanaam bu dëgg boo xam ne ay war du ci nekk ay nax du ci nekk ñun ci sunu ngëm-ngëm relation boobu dafa xaw a tuburaanke ndax bëri ana Euh, ci temporel bi ñoom laa ciy jam lu ñu daan politique këru diine yi ndax bari bëri na lu ñuy defal këru diina yi fekk jubluwuñ ci defal leen seen jox leen seen àq ba mu mot waaye fexe ba li ñuy def politisation à outrance tax ñu jël ci lañu leen waroon jox ñu am luñ ci comp jox leen ko ñoom ñu yaakaar ne seen cër la fekk déedéet du seen cër jox ñu leen seen cër ba mu mat loola nag am leneen luñ leen ci laajaat te xamuñu ne ñoom ñaar ñu war a ànd di liggéey la loolu nag day baax ñun fu ñu toll ñu leeral ko euh, xam ne dafa am pàcc bu ñu yore di ci liggéey yéen ngeen yor beneen pàcc bi te gouvernement bi day gouvernement boo xam ne du politique këru diine yi mais da leen jox seen gëdd ba mu mat sëkk jox leen seen àq ba mu mat sëkk li tax nag may insisté ci loolu mooy laata ñuy ñëw tuuma gu nekk tuumaal nañ ñu ko ci wàllu ñoom àgg nañ si sax ci ne buñ fi ñëwee gàmmu dootul am. màggal dootul am yooyu yëpp dégg nañ ko du ñun taxuñu dara te ñooñu ñuy wax loola bari na ñoo xam ne tey ci këru diine lañ jóge bokk ci ñoom ñu ñuy tuumaal loolu kon loola bu fekkee ne dañ ko wax ñu dem ba toog ñu commencé di indi lu mel noonu loo xam ne sax xëj na démb la woon te ngeen wax ko te ñooña taxul nag ñu incarné dëgg-dëgg mbir mi ñuy sukkandiko ci yoon pour jéem a jëlaat diine jëfandikoo pour màbb ko ci gouvernement bi day baax ñun saa yu ñu nekkee ñuy leeral lépp di ko di ko di ko tegaat ci yoon nga demaat ci beneen fànn boo xam ne ba tey ci diine bi la am na ñoo xam ne tax jéem nañu jël maanaam jàngu bi utiliser loolu pour jéem ko dóor ci gouvernement bi te gouvernement bi mooy gouvernement bi nga xam ne dafay boole këru diine yépp téye leen day jël këru diine yépp xam ne ñoom benn bànqaas lañu ci biir réew mi te bànqaas bu mënu la ñàkk la su ko defee loolu ñun ñu xamal leen ne ci foofu lañ toll eh, xamal leen ne liggéey bi dañ koy ànd ak yéen xamal leen ne du ñu nekk ci maanaam politisation ne leen ah ñun kat da ngeen ñuy defal lii ñu woteel pour ngir ngeen woteel ñu déedéet dañuy seet la ngeen moom muy seen àq ñu jox leen ko suñ leen waree ñaan nag ne woteel leen ñu ñu wan leen ne ah ñun lii la ñu liggéey kat dañoo bëgg ngeen votal ñu ndax wala lii lañ leen mëne ndax ñoom boromi xel lañu kon nag sëñ Abbas loolu mooy li nga xam ne moo nekkoon yéene bi ñu amoon indi ko ngir li nga xam ne moom la ñuy dëgmal war a dem ci kanam àggale liggéey bi benn pàcc bi matal ngeen ko ndax jël ngeen réew mi teg ko ci duñ loxo ci anam boo xam ne nag anam bu metti woon la léegi nag taxul liggéey bi mat war nañoo dem nag ba nga xam ne li ñuy wax stabilité mën a am su ñu bëggee soppi dara ci réew mi ñu mën ko soppi su ñu bëggee ñu nattal ñu la nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñu fas yéene soppi ci budget ñu mën ko def pàcc boobu def ci liggéey bi nga xam même bu nekk nekkoon politique sax mooy li xel nangu mooy li logique bi comme Sénégal bëgg nañ ñun ñu doxal rek kon Sénégal faw ñu àggale liggéey bi incha allah pour ñu mën ko doxal ndax ci budget lañ koy doxale te ku ne budget ne kon loolu bokk na ci li nga xam ne bokk na ci illa yi nga xam ne gannaaw saytu ak ziyaara leen euh, dafa nekk ci li nga xam ne bëggoon na ñu waxaale leen ko di leen ci tàkku ndimbal di leen ñaane comme niñ ko waxee euh, say professeur waxee sànq ndax moom it dafa bokk ci seen njaboot moom buñ buñ bu leen ñaanee rek suñu xel day dal ndax dafa bokk ci ñun bokk ci yéen moo tax mu yaakaaru li ñuy li ñuy def yaakaaru lool ñu bëgg nag ngeen jàppaleñ ci loolu bu baax sëñ Abbas te xam ne man bis ni tey Euh, naal bi amoon na waaye tey damay dama fësal kóllëre goo xam ne dama ko fësee am ak yow euh, te kóllëre googu ci turu président de la république laa koy xeli dox ak le premier ministre Ousmane Sonko jërëjëf Sall euh, jërëjëf Gadiaga jërëjëf Gadiaga jërëjëf. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرين بنانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يجب أن يكون هناك تاج ولا تاج ما يلين ci nuyoo bi gën a teey te gën a tedd di ko jox tey sunu gan gu tedd gi di ko jox tey sunu gan gu tedd gii muy monsieur ministre muy sunu ministre Alioune Dione xamante ne bi di nit koo xamante ne bii ay jëfam ay jëfam jiitu si na ko fii jiitu si na ko fii kon tey su ñëwee fii kon tey su ñëwee ak délégation bi mu àndal ànd ak délégation bu mag bii mu àndal duñ ci am lu dul amuñu ci lu dul mbégte te yàlla xam na ni te yàlla xam na ni noonu la njaboot bi bégee noonu la njaboot bi yëpp bégee am nañu yaakaar itam am nañu yaakaar tam borom dëkk bi noonu la bégee borom dëkk bi noonu la bëggee ma nga tëdd fële ma nga tëdd fële waaye ñun sikkuñu waaye ñu ñoom sikkiwuñu ne ñun sikkuñu ñoom sikkuñu xam nañ xam nañ luy dox ci dëkk bi luy dox ci dëkk bi wallaahi ñu ngi teg bëtam lépp luy dox ci dëkk bi ñu ngi teg bëtam kon monsieur le ministre. kon monsieur le ministre. ñu ngi jël nuyo bi. ñu ngi jël nuyo bi. di ko teg ci sa loxo. diko tek ci sa loxo. nga tegal ñu ko ci loxol président de la république. nga tegal ko nga tegal ko ko ci loxol président de la république. président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko. ndax tay buñ la fi gisee. ndax tay buñ ko fi gisee. dafa melni dafa melni président Bassirou Diomaye ñew na fi. dafa mel ni tey jii président Diomaye Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo fi teew. dafa mel ni président Ousmane Sonko moo fi teew. dafa mel ni tey président Ousmane Sonko moo fi teew. wallaahi wuutale wuñ leen. wallaahi nee na wuutale wuñ leen. ndax Sénégal ni mu toll. ndax Sénégal ni mu toll. ak ñoom li ñu yomb. ak ñoom li ñu yenu. mënuñoo jël. mënuñoo jël. seen tànk. seen tànk ku nekk. fu nekk ci Sénégal ci Sénégal ñu teg ko fa ñu teg ko fa waaye ñu mel ni yéen waaye ñu mel ni yéen mate ko ko sëkk su leen yónnee su leen yónnee doy na sëkk. sa discours bi nag. sa discours bi nag. sunu xel musul ñàkk dal na. nee na sunum xel ñoom seenum xel musta ñàkk a dal ci ndax ay nit lañu. ndax ay nit lañu. waaye noo ngi xalaat nag. waaye noo ngi xalaat nag it nag. te am nañu yaakaar ni. te am nañu yaakaar ni. xàmmee nañu tuuti. xàmmee nañu tuuti. li baax li. li baax lii ak safaan ba ak safaan ba. kon tey. kon tey. soo fi ñëwee. soo fi ñëwee. di def nemmeeku bii. def nemmeeku bii. Eh, dañuy wax ni. dañuy wax ni. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa wax ni. dafa wax ni. man kaana lahu fadlu fadlu saadi falya'ud bihi ala man laa saada lahu. loolu nag alxuraan la noo ko déggandoo. yonent bi nee na. yonent bi nee na. képp koo xam ni. képp koo xam ne. yàlla yombalal na la. yàlla yombalal na la. ba nga amub yóbbal. seetil sa menn mbokk. seetil sa menn mbokk. bu amulub yóbbal. nga mën a seet. bu la mën a seet. bu la mën a seet si. wa man kaana lahu fadlu zahri. Uh-huh. tubaarkàlla. mu ne képp koo xam ne. amuloo demuwaay. amuloo demuwaay. am nga dem waay. am nga dem waay. yonent bi nee na. yonent bi nga seet sa beneen mbokk. nga boo xam ne amul waruwaay. boo xam ne amul waruwaay. bu mu la man a seet see. loolu nag Alioune Badara jon monsieur le ministre def nga ko tey. yal na yokk. yal na yokku. yal nga koy gën a mën. yal na nga koy gën a mën. ah munuñu nag. nee na munuñu nag. nga teew fii. nga teew fii. président teew na. mu mu mel ni. président teew na. mu mel ni président teew na fi. te bu fi président teewoon. te bu fi président teewoon. lii nu lay wax. lii nu lay wax. sart la. sart la. ci nun ci nun pour ñu wax ko ko. kon dinañ la ko wax. jërëjëf jërëjëf. seen soxla ñoom. mooy soxlaas askan wi. askan wi ndax askan wi. suñu demee rek. bu ñu rek. ñoom dem nañ. suñu desee ginnaaw suñu desee ginnaaw it ñoom ñu des ginnaaw. Sénégal yëpp nag moo leen itteel. Sénégal yëpp nag moo leen itteel. yàlla def na ndax yàlla def na. foo fi dem ci région yi département yi seenu njaboot a nga fa kon Sénégal yëpp moo leen soxal kon Sénégal yëpp moo leen soxal waaye nag kenn ku ci nekk kenn ku ci na nga am dëkk buñ doon séddale buñ doon séddale di joxe leen président Ousmane Sonko wala Bassirou di ko joxe président Ousmane Sonko di ko joxe wala euh, président euh, Bassirou Diomaye Faye di ko joxe ñu ne ko monsieur le ministre benn cer la de foo koy yóbbu foo fan ngay wax bambay lay wax nga dëgg lay wax nga dëgg loolu nag loolu nag moo tax moo tax ñoom itam dingiraay ñoom ji ah, benn mag de daf ne woon menn mag daf ne woon mbaam gàtt na mbaam waaye ci jur gi la bokk de ay ku ko ginnaawal bés dana ñëw nga ne suma xam nga ne suma yëgoon wala suma xamone deug la deug la bari waana nak bari waana nak ay digge ay digge ndax fi kat ndax fi kat ñetti president ñew nañ ñetti president ñew nañ fi leopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdou Diouf ak Macky Sall ak Macky Sall ñew nañu fi ñëw nañu xam ngeen ni ñi xam ngeen ni deug deug deug bi bi ay akam ak fam ay yelle fam lu ci bari des na lu ci bare bare des na yoon wi rek am lu muy tektal te nak te nak ay mbolo fi joge ay mbolo fi joge nek nak di fu di joge fu di ñew di fi ñew fi rawatina rawatina sunu bis bu mag bi nga xamni mom rek lañu am kon suñu sañoon kon buñu nu ku ñew ba fi ku ñew ba fi di nga ñew ci dal ci tek ci teg ci banex ci jam ba agsi boo agsee fii nga nekk fii ci jàmm ak teg ak bànneex ba dellu siwaat loolu nag yàlla lañ ci yaakaar loolu nag yàlla rek lañ ci yaakaar yàlla mi nga xam ne nag yàlla mi nga xam ne nag wax ni allahu zil al mulku kullu lahi fil ard mhm. yéen ñii yéenay keru yàlla ci kaw. yàlla ci kaw suuf. kenn ku nekk yàlla dina la laaj. kenn ku nekk sunu borom dina la laaj. waaye yéen jàpp leen. waaye yéen jàpp leen ni. kuy noyeeti Sénégal. même bàyyi may. même bàyyi may sax. boo lëgee dina leen laaj. noo leen doon doxalee ak ñoom. Hmm. kon. nag. bëgg nañu. bëgg nañu. buñ la wax yoon. la yoon. am na ko hmm. na ko fi wax muy sëtam bii. la jógee Toubatoul. la jógee Toubatoul. ba Baba Garage. yéen a ngi ci. la jógee Bambey. ba Ngaye Mexe. yéen a ngi ci. waaye fii ak Baba Garage. monsieur le ministre. ci sa loxo la ko teg de. ñun daal ñu ngi xool rek. ndax dina si wala du agsi. bu agsee bu agsee ñu sant ñëpp gërëm ñëpp rawatina nag yow mi te loolu la ñuy ñaan bi ci topp yéen am na ay projets yu ngeen fi fekk. am na ay projets yu ngeen fi fekk. dëkku diine yi dëkku diine yi. jàpp naa ne yu ci bari yu ci bari. ñu ngi leen di moderniser. ñu ngi leen di moderniser. itam nag ndax itam nag. koo xam ne jamono bu ne. koo xam ne jamono bu ne. ay mbooloo ngi agsi ci yow. ay mbooloo ngi agsi ci yow. di ñëw ci yow di ñëw ci yow. beneen dëkk. mënta yem ak beneen dëkk. te yàlla itam nag. te yàlla itam nag. yemalewul noonu ngeen xam ne fekkoon ngeen ko fi. noonu ngeen xam ne fekkoon ngeen ko fi. te ñoom egseegul ci ñoom. waaye fexe leen. bu egsee seeni loxo ba seen ñaan gi bu leen ko ñaanale mu dal leen ñaan nak dañ koy gunge léeg-léeg ñu ne sëriñ bi aka mëna ñaan fekk ki nuy ñaanal itam da fay neexa ñaanal loolu nak tek na ko ci sa loxo inshallah ah, bu loolu passé ndax dañoo xaw a yàkkamti du yàkkamti sax nag ndax seen programme moo xat mi ngi nuyu ñëpp di leen dénk sëtam bii Abdullah Diouf présenté na boppam maamam maamam magam la sëñ Muxtaar bi tëdd fii bu jigéen bi gën a mag doom bu jigéen bi gën a mag mooy maamu kii Abdoulaye Diouf bi ma ne bi ma déggee ni mi ngi ci yéen. bi mu déggee ne mi ngi ci yéen. mu ne te yow it nag macha allah am nga sens. xaw ma foo nekkoon. waaye tey lañ la mas a gis. nga ànd ko ministre. ne ko kaay nuyu ji sama maam. kon nag sant nañ yàlla bu baax a baax. <laughs> li ñu ciy mujjee. li ñu ciy mujjee. mooy seen doom jii de Abbas. muy seen sët boo ko naratee fàtte boo ko naratee fàtte fàttaliku ko fàttaliku ko mooy way juróom mooy way juróom ci aada ci aada kenn ku ne sa mag ngay tudde doom kenn ku ne sa mag ngay tudd moom ngay sa mag wala sarak li muy mag mag doon mag mag moom mii toog baayam la mu jël xale bi tudde ko ko Abbas ah, a ngi nii macha allah mi ngi ci say loxo ministre mi ngi ci say loxo mi ngi ci say loxo. ginnaaw loolu nag. ginnaaw loolu nag. li nga nga xam ni. moom lañ ciy teg. moom lañ ciy teg. ndax kii day Abdoulaye Abdoulaye ndax kii day Abdoulaye Diouf. mu ràññee la rek. mu ràññee la rek. dëggal lim doon wax. dëggal lim waaye ñi fi daje ñi ñëpp. waaye ñi fi ak Alioune. ak Alioune. Euh, keneen ak moom Moussa Thiam. su nee la sa loxo jiitu na la fi ak say jëf. moom Demba mii. ñëw na ci gàmmo gi. ñëw na ci andiwaale na yu bari. na fi teraanga yu bari. ne ko ministre bi nekkul Sénégal waaye su fi newoon ci ginnaawam laay topp gëm na ko nag ndax tey jii nu bu rafet bii ku fi nekk rek maa ngi ku fi nekk ku nekk mu ngi lay nuyu. di xare di di nuyu euh, sëñ Omar yal na ko yàlla yërëm doomam toog nii asfal di fi nuyu di nuyu ñi fi ñëw ñëpp rek ñëpp nee na li muy tëje moo di jàmm ak xéewal yal na ko yàlla sotti ci réew mi lii leen yàlla dénk jarul kenn ku nekk di ñaanal boppam. jarul kenn ku nekk di ñaanal boppam. nanu ñaanal Bachir. ak Ousmane Sonko. fu nu muccee rek. suñu gaal mucc. fu suñu gaal muccee. suñuy ëmb mucc. ndax ñoom la yàlla dénk mbir mi. kon nag ñu ngi lay santaat monsieur le ministre bu baax a baax di wax beg bég loo bég bég ñoom bég nañ lu ko raw lii nag din lii nag dina ko wax bokk ci du teem wax ko taxaw ci penc mii ñaan yàlla te nanguwul boo ko defee xoolaatal sa bopp dénk na leen loolu boo ñëwoon gisoo ko gisoo fi kenn itam góor ga moo ko waxoon nga taxaw fële ànd sa pas pas-pas wax li nga bëgg te muy lu dagan nga dem xool sa bopp wallahi bu fekkee ni ba nga koy wax gëmoo amoo benn tarajut bu fe ben teng teng yàlla dina la bu fekkente ne ba nga koy wax amoo benn deng deng yàlla dina la ko defal kon loolu nag ñu koy ñaanal même bu leen ñaanal itam dem leen ci penc mi rek asalaamaaleykum wa rahmatullah kon loolu mooy wax day tungoom seede bi meeg see laare ko ne ministre bi muy ñëw ak délégation bi dañoo gaare fële oto yi ca penc ma di dox di ñëw ndax dëkk bi dëkkub baatin la dëkkub taraanga la ku fi ñaan sa aajo mu faju kon jërëjëf Gajaga jërëjëf Dr. Fal, Dr. Fal, Masuk Spesial, Baye Cheikh loolu la wax xalifa bi loolu la wax ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm Yalla mi am fay yàlla la fay ci barke nit ñu dëkk leen yi sang bi ñaan li lu bëgg ci réew defal mucc ak mucc la gudd fan ak wér yaram jàmm barke rasul barke muhammad rasul amin amin amin amin gare amin ya sa ko micro bal bal ma jël ko boy ki ñam leen waay